safo seetaan Sénégo TV sénégo point com tey nag ñu ngi am suñu entretien exclusif ak Ibrahima Maba Diop di international sénégalais Ibrahima maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydina maa ngi lay nuyu yéen ñëpp di nuyu waa Sénégo ak seen plateforme bi yëpp maa ngi rafetlu invitation bi di nuyu ñëpp ñeen di seetaan ak euh, di leen déglu. kan mooy Ibrahima Maba Diop ci tënk en France su Ibrahima Maba Diop. Euh, tout d'abord Ibrahima Ba Diop c'est un jeune sénégalais un jeune africain man maa ngi juddoo Sénégal région de Saint-Louis benn village bu ñuy wax Ñungumbere c'est à 37 kilomètres de Saint-Louis à 14 kilomètres de Ross Béthio mooy suñu commune à département de Diama foofu laa juddoo magge fa fooye fa jàngee fa alxuraan jàng école football ba ñëw fi ma ñëw tey nekk États-Unis quoi. enfance su Ibrahima Maba Diop ci fàttali. fan la jaar dafa demoon école coranique dafa demoon école française soo ci mënee résumé. waaw comme tout Sénégalais ñun ñëpp tey boo juddoo si famille boo yaroo xëy na alxuraan ngay njëkk jàng daal man village bi ma juddoo yaroo fa foofu laa njëkkee jàngee alxuraan ki ñu jàngal ñu ngi tuddoon oustaz Serigne Fall boobu xale yu ndaw lañu avant ñu dal école à lage de trois ans quatre ans ba ni ngay nekkee école même da ngay nekk CI ba yenn niveau yi sax da di. jàng alxuraan quoi noonu la demee man alxuraan laa jëkk jàng et par la suite euh, la dem école euh, élémentaire bu ñungu foofu laa jàngee CI ba CM2 après la am entrée dem Ross Béthio foofu lañ daan defee suñu euh, collège quoi après fa laa dem ba yàlla jàppale ma daal ma nekk fa jànge fa après par la suite dem naa dem naa Ndar nekkoon na foofu tuuti. quartier bu ñuy wax Daaru maa ni di nuyu waale ba joué foofu foofu la yàlla def ma commencé waale petite catégorie bu Linguère quoi fa la joué cadet mais auparavant suñu village bi foofu suñu kër famille de football la équipe bu nekk foofu sama tonton bu naan Daour Aan génn na àdduna at bi passé yàlla na ko yàlla yërëm xale ko àjjana lu ñu mel si football moom moo tax moom moo doon président équipe bi su ma mag suñu famille ñun on est cinq suñu taaw mooy Mbaye Diop moom moo doon coach équipe bi man maay suñu caatu kër xam nga kon gars yi fa lañ daan regroupé parfois suma mère moo leen daan toggal ak yëpp kon xam football bi dafa nekk suñu famille en quelque sorte nga juddu màgg tamit fekk gars di jouer ak yëpp daal noonu la demee ngay football ak suñu ay morom ñu nga xam ne ñooy fondoo xam nga rek comme tout jeune football si mbedd yeeg yooyu noonu ba jàng beeg yëpp bu ñu amee ay match après di jouer noonu suñu moroom ak école entre classe ak yooyu noonu interclasse yi yooyu c'était important pour ñun après yàlla jàppale ñu tamit ba ñu sori si jàng bi dem Ross Béthio tamit ñu fay jouer ba gars yi xam ñu après muy comme ça ba ñu dem Ndar par la suite la jóge Ndar dem Dakar joué naa douane en junior benn année la joué après foofu laa jógee ñëw New Jersey fa laa nekkoon quoi si Pennington c'était en 2016. Mm-hmm. après par la suite laa jógee. Pennington dem UCAN fële à Connecticut xam nga foofu c'était en 2018 après laa jóge foofu dem West Virginia quoi ba léegi ma nekk London fii nii à côté de Washington quoi. macha allah mu nekk parcours bu riche. Euh, hmm. ci diggante yi nga doon ceeñee entre state yi da nga continuer woon sa jàng wala école bi ñoo lay transféré wala club yi ñoo lay jënd di la jaay. voilà comme loolooy différence bi fii ak euh, Sénégal dafa xaw a compliqué tuuti léegi bu fekkoon. bi may sogaan di ñëw 2016 dama doon def sport étude loolu kese laa doon concentré wu xëy na ñoom mën naa ko si boole sax avant mooy ñëw amoon naa chance pour dem signer ji professionnel en France benn équipe bu ñu naan Dijon xëy na xam nañ ko mais boobu tamit man suñu famille ak ñun ñëpp xam nga dafa baax tey ñun fu ñu mën nekk dañu kilifa am naa suma grand frère et ñu discuter si bon comme que tamit xawoon naa sori si jàng bi te bëggoon na sama objectif ma nekkoon kon du ma bëgg juste di. di bàyyi sama jàng gi yëpp dem football et sànni lépp si àll bi comme sa quoi après nag laa ñëw ma choisir fi dem Pennington léegi danga daan jàng la ngoon bi ngeen di football ak yooyu noonu yi comme xam nga ni muy demee si état yu bëri NCA ak yooyu noonu noonu doon demee quoi mais la plupart tey da ngay nekk si benn équipe dañ lay gis xam ni yow mii sa talent romb na lii dañuy mujj transfert la fen parce que équipe de football bi moo lay bëgg comme Red Bull jaar naa foofu New York Red Bull seen académie ak yooyu noonu après joué tamit. Euh, quelques instants ay Nashville ak yooyu noonu xam nga day nekk fu nga xam ne football kase ngay def léegi da mujj sacrifier jàng bi wala nga koy def online yooyu noonu moom mooy chance bi fii léegi bu la équipe yi bëggee dañ lay jël mais du tee sa scholarship bi nga am sa école yaa ngi koy def da ngay continuer di jàng ak yooyu noonu mais online nga koy def mais ngay continuer club bi di jouer ak di football transfert bi noonu lay demee quoi en quelque mm-hmm. ndax bi nga jógee Sénégal ñëw fii da nga perte contact ak fi nga daan jouer wala ñi la entouré woon. non man. bi ma ñëwee fii parce que je me rappelle euh, ba première semaine yeeg mooy xawoon na metti parce que booy soogaam di ñëw temps yooyu xawoon na compliqué daal parce que booy jógee Sénégal xam nga nu muy demee day metti et tout mais mosuma perdre contact ak fi ma jóge woon chaque fois dañuy échangeante te yomb na à travers WhatsApp beeg yooyu noonu xam nga dañ doon déggante tout le temps lu ma nekk dañ koy xam mhm. image yi dañ koy am suñu entraînement dugg suñu site équipe ak yëpp dañuy gis tout après suñu amee temps wala tuuti break wala vacances damay dem foofu nekk ak ñoom parfois dañuy entraîner ñoom suñu saison bu jeexee ñoom jeexul damay dem vacances yi di entraîner ñoom wala di leen invité village ñu jouer ensemble di nekk yooyu noonu quoi.